mbokk yeeg xarit yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen ziar bu baax a baax j'espère que kenn ku ci nekk émission bi dina la fekk si jàmm ak salaam ndax ñun nag jàmm moo ñu gunge accompagner ñu ba ñu mën a ñëw def li nga xamante ne rek euh, moom mooy suñu liggéey lépp jëm ci ngir di rek leeral leeral TV nag ginnaaw dafa jóg ngir leeral lu bari bokk na ci itam leeral li nga xamante ni rek euh, moom mooy doomi aadama yi seeni activité waaye fësal ko def ci bokk programme bi ñuy wax l'homme du mois n'importe kii nag du nekk l'homme du mois sur leeral ndax nag dañuy bëgg kàngam yi nga xamante ni euh, dañu nekk ci seenub liggéey daal di cay nekk ñoo xam ne dañu ñu caa fës ñooñee la ñuy tànn teg leen au devant de la scène ngirit it nag ñu expliquer waxtaan ak askan wi ngirit ñi nga xamante ni euh, jotuñu leen a xam ñu mën leen a xam tamit waaye itam ñu nekk ñoo xamante ni tamit dañuy daal di joxe ay digle ba léegi rek jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndawi Sénégal ki ñu euh, tànn nag euh, ñu ngi koy duppee Maodo Malick mbay moom nag euh, Thiès daanaka boo dee xool euh, li ñuy wax cees euh, la dëkk waaye itam nekk na koo xamante ni ci paysage bi ñuy wax politique gu Sénégal ak liggéey ngir suqali yi kenn du ko ci présenté ndax euh, moom mi nga xamante ni nag euh, moom mooy njiitu ANAMO nekk na koo xamante ni yàgg na ci millier bi waaye itam nekk na koo xamante ni ay jéego mi ngi koy sekk jëmale ci ay activité am bu baax a baax ngir lépp rek Sénégal ba léegi rek euh, bokk ci ñi nga xamante ni daf leen def ci am pierre d'édifice am ñu ngi lay nuyu bu baax a baax DG. merci Timam di nuyu di la nuyu di nuyu tamit auditeur ak. téléspectateurs ak ki nga xamante ni ñu ngi suivre leeral euh, TV di ci profito di nuyu suma jeune frère nekk suma nit ma respecte ko lool ci jaar-jaaram muy euh, Dame Dieng man dama respecte ñi ñi jóge fu sori te daam dafa jógewul fenn. ak yegg si ba taxawal li mu taxaw donc bu ñu amee occasion dañ ko ci encourage félicité ko. Mm-hmm. jërëjëf d' abord fu ñuy commencé mooy euh, bu ñuy wax Maodo Malick Mbaye mm, duñu ko wax rek ne Thiès la dëkk am na parcours fan la tàmbalee parcours bi. oui merci parcours bi mi ngi commencé Thiès d' parce que man Thiès la laa juddu fa laa euh, commencé. Euh, lu ñu les premiers pas de la vie maanaam ba bi may am juróom-ñaari at ma dem sama papa ci culture bu mu am mooy di nekk doomam souvent daf koy joxe mu dem jàngi alxuraan xam àdduna un mu jël ma nag confier ma Saint-Louis ndar fa laa jànge école école Brière de Lille jànge fa alxuraan ci daara Serigne Mamoun Ndiaye nekkoon ci famille adoption bu ñu une grande famille saint-louisienne la famille de Birahim Gueye Mamoussé et de Marem Sek Dam. C'était vraiment la, de grands Saint-Louisiens. Mm-hmm. donc fa laa jàngee ba bi may am entrée en ma ñëw Thiès def euh, collège defee ko Château-d'Eau mm-hmm. mu tudd CM Mamadou Diaw bi ma fa jógee ci laa ñëw Dakar mm-hmm. euh, deux ans après pour égale fi sama njàng c'est euh, bopp après dem CES dem lycée Galandou Diouf Mermoz c'est comme ça ensuite j'ai eu mon bac parce que dama doon déplacé au gré de suma grand frère bi ma nekkaloon fi mu doon euh, parfois déplacement yi mu doon am au plan professionnel mais bi ma ñëwee bay def terminal dama def choix parce que dafa fekk na boobu ma nekkoon ma jiite woon nekkoon ci foyer bi am ci responsabilité au lycée Galandou Diouf à Mermoz on était là alors que moi je n'avais pas droit à l'erreur parce que ba doon fàttaliku turan fi ma jóge donc ma am défi yu bari yu ma fa bàyyi woon muy Thiès euh, nekk quartier Cité Lamy yi ma jóge fa donc bi ma demee nag ba sama gars yi ñu ñëpp ñu ñëwandoo def terminal ci suuf ma jël sama dossier fexe am transfert dem lycée lycée Limamoulaye pour am j'ai eu mon bac avec la mention assez bien donc voilà entre temps on a été vraiment ci combat yu bari et puis ci njàng mi yàlla mayoon nañu ci ñu bokk ci ñi nga xamante ni bàyyi woon nañu xel parce que dañ ko bëggoon parce que moom ñu rek moom ci doon génnee après j'étais au département philo jusqu'à une année de maîtrise après nag bon ñu am exigence parce que il fallait vraiment ñu ñu def dara pour euh, soutenir la famille C'est ça qui a fait qu'ensuite je suis entré dans le journalisme. Mm -hmm. ma formation à l'ISIC mm -hmm. communication, après def journalisme, après nag bi ñu demee nag ma def journalisme tuuti mhm. après ci la spécialisé wu nag communication. Mhm. bi ma defee communication ma yàlla def ma nekkoon directeur de la communication du COUD. centre des œuvres universitaires. avant boobu j'ai travaillé au conseil régional de Thiès euh, mais boobu je n'étais pas encore formé comme jour, comme journaliste ou expert en communication dama am rek benn nit bu ma dajeel mu am ci man sympathie am ci man confiance confier ma sama premier poste muy le ministre Mambounama Sall président du conseil d'administration de la SICAP après rek bi mu demee conseil régional de Thiès aussi on était ensemble foofu nag laa jógee comme je vous ai dit def la formation bon pour en arriver après nag wala quoi gérer nañ fi jaar jaar nañ fi benn parce que on a travaillé directeur communication COUD ensuite ministère assainissement comme am ci expérience ensuite Youssou Ndour m'a coopté pour que je m'occupe de sa communication je pense que ça a été une grande ouverture pour moi vers le monde mm-hmm. ensuite j'ai été expert consultant en communication pour le Fonds mondial de lutte contre le sida mm-hmm. basé à Genève j'étais leur consultant sur l'Afrique de l'Ouest et du centre mm-hmm. après loolu la def engage wu aussi créer mouvement gëm sa bopp créer li ñu teg ko ak ay nit mm-hmm. modestement yàlla def ñu ànd ak président Macky bi mu faloo mu dénkuñu li ñuy wax agence nationale de la maison loti ñu def ci ren huit ans d' waaye balaa ñuy ñëw ci ci agence boobu gisoon nañ la bu baax a baax Euh, ci li nga xamante ne mooy wàllu politique mais aussi gisoon nañ euh, ni da nga amoon euh, jaar-jaar wala bokk link ak président Abdoulaye Wade bi mu fiy nekk si jamono jooju. pour votre information je n'ai je suis l'un des rares sénégalais yu musuta am chance de voir Abdoulaye Wade à moins de deux cent mètres. musuma gis Ablaye Wade ma ko d'ailleurs loolu daf ma naxari ba tey. ba tey ñu ngi wax. non pas non waxuma li ñuy wax li ñuy wax loolu amul. Mm. c'est juste pour wax la ni. que musuñu musuma non dama ni Abdoulaye Wade pour damay leeral moo tax ma wax ni li nga ma laaj noonu ma ni musuma am acquaintance ak parti démocratique sénégalais euh, bu amoon duma ko weddi parce que nit du wax ni duma lekk ci yàpp bi mais sama bëñ laa koy séddale donc tey ki ñu àndal ci politique ki ko nàmpatal euh, yàlla jaaral ci moom mu tàggat ko ci lu bari mooy président Ablaye Wade moom PDS la bokk mooy Macky Sall mais man dama la wax ni la que musuma am acquaintance politique avec le parti démocratique sénégalais euh, yàlla aussi euh, loolu parce que duma ko wax mel ni dama ko buggul wala dama koy daw dama wax ni président Wade aussi musuñu am mukk euh, jegewoo bu mu munti doon moo tax ma wax la ni dama bokk ci Sénégal yi amul chance mus ko nuyu sax wala mus ko jege donc pour vous dire que musuma am relation. na euh, non mosuma ko mosuma ko jàppale. Euh, je pense que la personne bi ma xam mu jege woon xam naa nag j'avais des amis nag. ki nga xamante ni ay xaritam la ñu woon nekkoon ci moom. mais ki nga xamante ni daal moom laa xam euh, muy le président Macky Sall en 2007. Mm-hmm. il était avec le président Abdoulaye Wade. moom mu coopté woon ma comme ñu koy conseiller ci wàllu communication. Mm-hmm. quand il était directeur de campagne du. Euh, du candidat Abdoulaye Wade les gens sax dañ ma doon wax ni mais yow li ngay wax amul sens yow yaa ngi conseiller kii te yow tu votes pas pour pour Wade j'ai dit sama liggéey sama liggéey la sama conviction politique sama conviction politique la. lan mooy sa man dama wax ni politique d'abord li ma ci gën a ñor mooy euh, nu ñuy def yokk yokk ba yëg ko yokk ba yëg ko nag du man ma yokk ba yëg ko mais nga fexe ba nga xamante ni askan wi. di nga teg ay jéego yu ñu ci mën a gisee seen bopp man maanaam ñu ñu yëg ci loolu nag man je pense que dama ko judduwaale presque parce que bi ñu nekkee xale rek lañu commencé di euh, am bu euh, koñ bi taawee ñu dem ñëw def investissement humain nawetaan yu ñëw jàpp ci boobu parce que man gëmuma ni nit da ngay naan naa bàyyi ba yor soog a def mm-hmm. ki lay naan la bu ma yoree dinaa la may te euh, bu la du la du la defalu la dara mhm. ci li mu man bu amee lu bari tamit du la defal donc man politique ni ma ko jàppee mooy mhm. nekkatul problème waxu falu parce que ñun man musuma comme je vous ai dit euh, musuma am engagement politique mhm. auprès d'un parti ba dugg ci que ça soit le parti socialiste ay qui j'étais très lié parce que Mamadou Dama Sall boobu ma la wax moo nekkoon ci parti socialiste bon amoon nañu ay affinité mu nekk ku ma kii ku nga xamante ni suma suma papa la presque ci man donc man li ma jàpp ci politique pour dëng ko daal mooy nan la ñuy xalaate ba mbir mi dox mu bañ a nekk rek waxu dama bëgg a falu nan laay def ba falu bu ma faloo kan laay àndal ak ku ma dul àndal en tant que l'homme du mois dafa am tout le temps loo xamante ni ñun dañu koy seddu mooy askan wi la ñuy jiital est-ce que jamono jii gis nga ni Sénégal mu ngi dox oui xam nga question yooyu mënuma ko répondre noonu parce que munoo taxaw wax ni. mi ngi dox réew mi réew mi que neex na est-ce que. jaa fi loolu la ñuy wax yenn saa yi. non dama wax ni jàmm mais est-ce que secteur yëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi. oui mais naturellement secteur yëpp mënul fonctionner te kenn xalaatul secteur yi fonctionner mm-hmm. mais comme je dis mënuñu euh, wax de manière péremptoire. Mm-hmm. dëkk baa ngi dox. Mm-hmm. wala nga taxaw de manière péremptoire nga dëkk bi doxul. dama wax ni toujours am na. ay jéego yi nga xamante ni gis nañu ni que président de la république mi ngi koy def ñi mu àndal xëy na ñi ngi koy def mais foo waxee lenn lu dox mën nga wax lu doxul mais booy seet ak fi jamono toll dañu jàpp ni li nga xamante ni mën nga ci teg loxo ni mi ngi dox moo ëpp li nga xamante ni da nga naan da nga naan doxul mais comme je dis toujours li ci am importance mooy ñun ñi jiite ak ki jiitu ñu gëm ni dañu war a gën a doxal mais ñi far feneen aussi li dox ñuy wan ah lii de dox na mais bu ngeen defee fii mu gën a dox. yaa ngi neen ñu ngi la dénk Adamo depuis deux mille huit euh, euh, depuis huit ans yaa ngi ko yor mu nekk euh, kër goo xamante ni daanaka boo dee seet ndaw yi la ñu gën a ndaw yi la ñu gën a teg au devant parce que daanaka ci formation li ciy def bëri na trop même dans les profondeurs du pays donc loolu est-ce que mbir la moo xamante ni tey mën nañoo wax ni. xëy na euh, création am ba euh, ñi ko yor ba fi ñu yegg si nii mu tàbb ci loxo yi ki ñuy wax Maodo Malick Mbaye est-ce que mën nañoo jàpp ni mën na rey yenn moowu société bi comme ñàkk liggéey bi nga xamante ni moo am si réew bi oui xam nga euh, ANAMO le président Abdoulaye Wade moo ko créé woon dama jàpp ni idée bu baax la woon parce que bi mu ko créé en 2010 décret bi ko créé dafa waxoon ni ni ñu fexe ba nit ñi fa ñu nekk lu mu sori sori ñu indil leen fa ay jumtukaay yu ñu mën a tàggatoo pour mën waxuñu immigration de waxuñu génn mais pour mën toog ci gox bi ñu former leen équiper leen bi may ñëw fekk na ku ñu benn ku ñuy wax Mor Seck nekk nit ku am engagement nekk à Touba fa la amoon ci taxawaay mais ñun bi ñuy ñëw dañu ñëw fekk maison de l'outil ñett amoon ñett yi amoon yëpp mu ngi amoon ci convention maanaam dañuy jël benn kër loué ko def ko maison de l'outil ba bi ñuy egsi euh, yàlla di def président Macky Sall di ma óolu di ma ko dénk anam moo amul woon yu état wala yu agence moomal boppam ñu ne ñoom ñoo ko def donc bi ñu ñëwee ñu xalaat euh, moyens yu doyul mais du ñu tax naan moyens yu doyul Euh, teg nañu daal suñuy ay pexe ba def suñu ay partenariat ak li état di ci jàpp lu mu néew néew ñu fexe ba tey am na fukki maison de l'outil ak benn yi nga xamante ni ñu ngi ubbi nañ leen fexe nañu ba juróom benn junni ak juróom fukk ci ay ndaw ak yi jigéen jàngal nañ leen liggéey maanaam liggéey bi ñu leen di jàngal mooy lu mel ni fóot ak paase ñu bari dañ naan fóot ak paase kenn du ko jàng parce que groupe rek la ñuy def ñëw alors que dañ koy jàng réparation téléphone réparation énergie solaire euh, les les appareils photovoltaïques sérigraphie bari na yi nga xamante ne tàggat nañ leen ci ba am nañu daanaka euh, li ma wax la euh, juróom-benni junni ndaw ak i sénégalais yi nga xamante ni. mokkal nañu seenu seenum xëy ci ñooñu am na ci juróomi junni yi nga xamante ni biñ leen ko defalee am nañ ci lu ñu jàpp ba tàqaleeg nañ leen nag taxawaalu lëj li maanaam ñu amum xëy mm-hmm. donc loolu mooy brièvement xëy na bilan bi nga xamante ni du xaj ci émission bi mm-hmm. mais euh, li ñu gëm daal mooy tey bu doonte ni dañuy wax bilan ñu ne bilan bi ñu am ah du ñu am kersa ku ne defee li nga tegee li nga def ñu ñu teg li ñu def. Mm-hmm. Anamu dafa des ci euh, visibilité. Mm-hmm. di nga ci d'accord ak man wala. non xam nga communication ñi koy def ñëpp bon man damay gis mooy suma métier nag bon du ma ci bàkku mais am na lu ñu ci xam parce que communication li ci ëpp solo mooy cible bi maanaam tey boo nee damay jaay. cube magie baykat bi mën na ko bañ a xam parce que moom intéressé wu ko bi sax mën na ko bañ a xam mais ki koy bañ a xam mooy toggkat bi cest à tey boo nee damay jaay omo boo demee di ko wax élève bi yoonam ko ci boo nee damay jaay tàngal xëy na boo ko waxee maire yi mën nañ ko bañ a xam mais ku ci nekk dafa am cible mais dama jàpp nii ñun suñu cible bi ñu am xam nañu lan mooy Anamo parce que ci maison de l'outil fi mu nekk yëpp ñett rek lay régler bi ci njëkk mooy fexe ba ndaw ñi ñu jox leen ak nit ñi ñu jox leen ñu mën a tàggatu ñu jox leen fu ñu koy defee bu ñu ko defee pare ñu accompagner leen jox leen ay jumtukaay pour ñu mën ko def ay moyen noo jumtukaay bi nekkul xaalis matériel bi lan lan lay jox ci li ñu am ñun mhm. dama wax ni pour ñëw ci question visibilité boobu xam nga ñu bari dañuy jaawale publicité ak visibilité parfois mbir day jàll ci télé ba ñëpp xam lii mi ngi jàll mi ngi jàll mais est-ce que visibilité boobu moom mooy communication bi appropriée yaakaaruma ko. waaye xam nga kër gu mel ni ana moo tey bu ma doxee cent mètres wala deux cent mètres laaj ab jeune ndax xam na ko mu ni déedéet ci réew mu mel ni Sénégal te mu nekk structure boo xamante ni li nga wax tàggatu la ak accompagnement su nekkente ni dañu toll foofu kon manque de visibilité boobu noonu day nekk un problème. waaw ça dépend ci jeune bi ngay dajal xam nga tey boo dajee benn jeune bi nga xamante ni certitude la am ah, que hmm, koo fi dajeel nga laaj ko. mu nekk ci benn cadre bi nga xamante ni li ñuy def intéressé na ko xam na ko maintenant nag. ciblage du doy parce que mën nga génn fii euh, dajeeg par exemple fukki nit ak juróom. Mm-hmm. ñëpp laaj leen ñu ni la xamuñu leeral je donne un exemple. c'est pas un bon exemple ñu ni la. Mm-hmm. par exemple xamuñu fu euh, fu benn kër nekk. benn wala benn produit. Mm-hmm. nga avancé tuuti dajeeg juróom fukk laaj leen. juróom fukk yi xam ko. léegi nag paramètre bi foofu la nekk mais comme je di ciblage bi xam nañ ko maintenant le grand public. xëy na ñun ñi ngi dinañ def des efforts pour ñu gën ko ñu gën a xam lan la ñuy def parce que loolu li la koy wan rek mooy suñu maison de l'outil yi mm-hmm. am na un bon taux de fréquentation mm-hmm. tey moi je pense que bu fekkoonte ni dem ngeen ci suñu maison de l'outil yi que ça soit à Ngaye à Mekhe à Mekhe à Thiénaba mm-hmm. un peu partout à Golf ici da ngay gis ni ñi ngi ñëw di def les euh, intéressé intéressé na leen te nag ñoo ñoo ci ëpp solo je pense. Mm-hmm. léegi est-ce que tamit euh, euh, li nga xamante ne ni euh, tey ji mooy liggéeyub ANAMO. buñ ko seetee xool ko ak chiffres yi nga xamante ni wax nga ko est-ce que tamit laajul wax dëgg yàlla def li nga xamante ni mooy peut-être le tour du pays ndax nag euh, DG am na ñu bëri ñoo xamante ni comme li ma la wax sànq ci ci euh, visibilité bi am na ñu bëri ñoo xam ne tey xëy na jël nañ gaal gi ndax li tax euh, peut-être amuñu porte bu ñu war a mën a fëgg amuñu issue te peut-être que anamoo ñun mën nañ ko jàppee comme issue boo xamante ni tey jeune bi buñ ko peut-être euh, waxee ni ko fii de boo fi ñëwee naam mën na am nga bañ am xëy waaye mën nañ la orienté peut-être ba nga sa xam-xam màcc jëm ci dara ñu jàppale la ci jox la ci ay outils yi ba nga ba nga mën a toog est-ce que jàppoo ni tamit responsabilité am na ci kaw li nga xamante ni rek moom mooy euh, ruée bi jeunes yi di def vers euh, l'Europe. oui mais pour ma dalal sa xel xam nga il faut ñu def ndànk lool ci wàllu. Euh, c'est vrai que communication du doy parce que communication fan lay doyee mooy nga ni mbir ñëpp xam nañ ko mais comme amoon nattukaay pour xam ñi ko xam ak ñi ko xamul bu la nit ni xamuñu ko rek da nga naan d'accord ko war naa dolli pour ñu xam ko mais il faut qu'on fasse très attention ci bu ñuy analyser le phénomène de l'immigration parfois damay gis ñuy wax ni noonu xale yi amuñu xëy moo tax ñuy dem ce n'est pas tout à fait raison du du du valable parce que ki nga xamante ni dafa tey man ci ñiy dem am nañ ci ñi nga xamante ni tey dañoo jaay seen imagine toi ku nga xamante ni dafa doon liggéey di gagné gagné gagné gagné ba ci yàgg. 300000 par mois ba ci yàgg mu mu mu doon jàng lam doon jaay lam la mu mu jaay ko. ni naa naa dem fële pour am fa lu ëpp li ma doon am donc waxul ni amul de daf ni li may am mën naa am lu ëpp leneen foofu. te bu demee foofu am na liggéey bu ñu koy sant foofu du ko def da am na liggéey bu muy nangu foofu bu ko nangu woon fii xëj na dina ci mën a am euh, wërsëg wu daanu ci loxoom mais dina ci mën a am toog ci dëkkam te gis nga tukki surtout nga ni même boo demee ci gaal ba yegg segam ñuy tukki ci avion am na yoo xam dañuy tukki ci avion wàcc ci aéroport dem ci hôtel pendant deux jours ñuy réer waxatuma laa boo jëlee gaal gi donc ñun communication bi ñu war a def dafa war a def dafa war a nekk une communication qui engage tout le monde cest xale yi waru leen jël gaal gi mun la noo awma xëy nga ni ko même boo amul xëy waroo jël gaal gi parce que ñiy dem demuñu souvent rek parce que amuñu xëy dañuy dem parce que nit moo bëgg di dem nit mooy ki nga xamante ni tey fu mu toog ak la muy dund bu ko dundee fukki at juróomi at juróom fukki at parce que non dama juróom fukki at deux ans trois ans quatre même bu dee mi ngi ci faj soxlaam mooy gëm ni man am na leneen lu ma mën a am lu ëpp loolu beneen élément bi mooy cette pression sociale la nga xamante ni yaay yi baay yi famille yi dañ koy def ba nga xamante ni ki nekk ci kër gi te am tuuti te àdduna du neex ba ñu yemale ki am ak ki amul loolu moom mu dégg ko wax sax moom loolu moom waxi ku xamul àdduna la pourquoi nit ñi di ñaan am parce que fu mu munti doon ñi am ak ñi amul duñu leen yemale ñi faloog ñu folleeku duñ leen yemale ñi xam ak ñi xamul duñ leen yemale parce que buñu yemalee ñëpp nag cela veut dire ko problème am na donc je pense que ñun mënuñu wax ni rek am na lu manqué ci ñun moo tax xale yi dem il est évident que maintenant gis nañu ñun un ciblage bi nga xamante ñu ngi ciy discuter ak suñu ministre de la de la de la de la suñu ministre de tutel pour wax ko ni ñun gëm nañu ni que xale yi dem ba échoué buñ leen dellusee ñun mën nañ am lu ñu def ci ñoom benn ñaareel ba potentiellement ñi nga xamante ni xam nañu dañuy dem mën nañ leen a jox ay outils tàggat leen ba ñu bañ a dem mais li may wax foofu te loolu pouvoir ñun ñu nekk au pouvoir nag mu intéressé ñu mooy dama jàpp ni xale bu ci tenté di dem buñ la jàppee nañ bàyyi jàppale rek yóbbu la police nañ bàyyi jàpp la takk dugal la fenn bon li nga def délit parce que voyage boo ko tegul ci yoon rek délit la mais il faut ñu xam ni xale yooyu buñ leen jëlee war nañu mën a am ñun fii ay centre yu ñu leen di dalal déglu leen dalal seen xel jox leen ñu lekk ñu naan ñu tëye leen benn moment ñëw nag wax leen li ñu mënoon a am ci dëkk bi en terme de d'opportunité mais le problème que nous avons mooy situation globale bi ni ñu koy gérer. la ñu war a la ñu war a la ñu war xoolaat face à cette à cette crise d'accord du ma ci ñëwaat bien que am na lu bëri lu ma ci mën wax ndax nag euh, DG boo gisee euh, peut-être xale bi yor trois cent mille peut-être que euh, cherté de la vie moom mooy tax trois cent mille yooyu dootu ko mën a doy. mais fan moo fan la vie bi cherul. fi vie bi fépp la chéré mais xam nga suñu demee tey. ba mais attends trois cent mille fii boo ko yoree. Mm. ça doit faire. Et tu as 150 euros, 150 euros, c'est presque euh, 250, 300, 400 euros là, à peu près. Mm. Mais il y a 300 000, il faut multiplier, diviser par 650, tu as Donc le problème, man, yi je war a fait ce qu'il a fait. Dédé, l'État a fait ce qu'il a fait, mais il Mais wanja ngi bañé ci bañé xan nga mm. parce que tey yow mii am nga sa benn xarit bu nekk bitim rew mm. wala bu nek ci dëkk bi am na beneen liggéey wala leneen lu muy def li nga xamante ni xëj na yow da nga ni man defuma loolu lii laay def li ma ci am mu doy ma ma sutur la ci je pense que concept yi foofu lañ ko foofu lañ ko war a aborder au lieu ñu jël rek xale yi xale yi bu leen wutal lay mm. nañ leen wutal solution mm-hmm. mais kii dem bu ñu ko wutal mu ko lay bokk nga si ñi ko war a def mën nga ko d'accord ak sa ak sa ak ak structure bi moo taxit ñu ngi koy def mm. parce que quand on tey xale bi la man par exemple am naa contenant au moins une centaine de jeunes yi nga xamante ni dañu ñun dañoo demoon euh, université am licence am maîtrise amuñu xëy ñu ñëw ñu former leen ñu ubbi ay blanchisserie. d'accord euh, représentant Sirite nga en Afrique lan mooy Sirite. waa Sirite dafa nekk centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue mu nekk benn organe bi nga xamante ni africaine et internationale nekk Genève spécialisé wu dialogue maanaam nit ñi nañuy waxtaan nañuy fexe ba nañuy waxtaan balay balay rayante di am mm-hmm. bi ñu ko sosee foofu depuis quatre vingt seize am nañu léegi vingt six ans mm-hmm. man en deux mille onze ñu def appel à candidature on était deux mille africains ñuy compétir ba mu des dix ñu dem Genève def test si ñoom ñu téye ma ma représenté leen fii mm-hmm. Afrique de l'Ouest et du centre donc li ñu spécialisé wu mooy dialogue et concertation fexe également ci suuf ba xeex yu bari yi nga xamante ne mi ngi am ñu fexe ba anticiper ko. ba am en Afrique. est-ce que du loolu moo tax tey jii président jël organisation bi nga xamante ni moo jëm ci grand prix du chef de l'État pour le dialogue teg ko ci sa. no du foof foofu laay préciser ñu bari dañu yaakaar loolu la. Mhm. en vérité ñun ñoo. Sirit moo créé prix. moo créé prix Sirit ci boppam. le 2 juin. tuddee ko Macky prix Macky pour le dialogue en Afrique pour ñu tuddee ko prix Macky Sall dañu gis ni mm. amul benn dëkk bi nga xamante ni ñi ngi toog di waxtaan te rayante wuñu ba pare mm-hmm. président bi mu ñëwee moom dafa jël dialogue teg ko en anticipation maanaam ni ñi di toog di waxtaan te dara du xew mm. te day bàyyi ba gagné élection ba pare ba nga xam ni gagné na mu ne ñëw leen ñu waxtaan bi ñu toogee le 2 juin moom xamuñu ko woon parce que man maa fa nekk sénégalais. du dem rey la jaale la. <laughs> non non non du non non du du je pense pas ça. Hmm. il faut que ñun ñu xam lan mooy suñu problème dafa am ñu naan la noo jarul dialogue parce que problème amul mais bu ñu voté ay élection dem. Hmm. nga voté ma voté ñoom ñëpp voté ñu ne élection yi lii la ñii ni non d'accorduñ ci ñi d'accorduñ ci mais ñu dem yóbbu ci conseil constitutionnel ñu ne. wax ngeen mais li ngeen wax amul dara lu ci war a mën a tax parce que élection yu mujj yi par exemple dañu dem ci élection président gagné bon bi mu gagné ñu ne gars yi lan ngeen di wax ñu ne ñun amuñu benn recours amuñu benn recours cela veut dire que apparemment amul lu ñu koy reprocher ci loo wàllu woowu man waxuma nag ci problème politique sénégalaise à l'intérieur parce que bu ma nekkee ci posture Sirit du ma ci wax mais li ëpp solo li mooy di ne ñun prix bi ñun ñoo ko sos Sirit ñoo jël cinquante mille euros non non non foofu laay lay décerné nañu ko ñu jël cinquante mille euros at mu jot mhm. ñu dugal ko ci ba pare di wër Afrique mhm. di seet kan moo réglé ay problème ci dialogue waxuñu ni Macky Sall dafa réglé ay problème ci dialogue ñun waxuñu Macky Sall ñun Macky Sall dañu ko tuddee xam nañu am nañu ay raisons yu tax ñu ne prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. quelles sont ces raisons. les raisons mooy dafa falu. Mhm. en deux mille huit en deux mille en deux mille douze. entre 2012 2013 et 2014 mu ubbi sur toutes les modifications yi war a am ah. enseignement supérieur santé ah. Ah. décentralisation mu ubbi ci ay cadre ne nañ waxtaan te président boo demee ci constitution bi le mot dialogue amu ci dañuy président moom la ñu fal yaay doxal bu la neexee nga doxal doo laaj kenn boo laajee nit ñi ñu ne loolu am na mais ñu gis ni aussi le 28 mai dafa créer la journée du dialogue ba pare institutionnaliser ko mi ngi ko def mais le 2 juin ñun ñu initier ce prix la joxuñu dërëm parce que ñun on est structure bi nga xamante ni on nous surveille de partout ñu jël cinquante mille euros dugal ko ci ñu nag léegi ñun ak mu jot dañuy seet kan ci Afrique moo ko mérité li lay wan ni prix bi dafa crédible en 2017 ñu ngi ko jox le Moronaba du Burkina Faso parce que mooy seen foofu kooku mooy seen sëriñ seen empereur parce que moo réglé woon la crise en 2018 amoon nañu plus de d'une vingtaine de candidats Afrique ku nekk bind ni da ko bëgg bokk pour compétir ñu tàggat leen ñoom ñëpp xam ne kenn mënu ko ci jël ñu éliminer leen 2018 prix bi joxewuñ ko en 2019 ñu dem seet Mama naa Kenyatta mu nekk jabaru Jomo Kenyatta bi nga xamante ni moo nekkoon njiitu président ñu njiitu keña ñu jox ko xam nga pour la ñu jox ko parce que dafa def lu raar doomam Uhuru Kenyatta daf doon xeex ak Raila Odinga ci ay élection ñu dem ba Kenya am cent morts mais y problème mu dem jël doomam muy président de mu convoqué këram convoqué opposant bi mu ñëw mu tëj leen leen di ngeen déggoo wala ma rey leen yéen ñaar parce que yéen ñaar seen papa yi ay xarit la ñu woon noonu la Kenya amee jàmm mais ñun ñu ne Afrique yooyu fi am ci ndey ci bàyyi ci jigéen ju baax mën a dox yooyu ci moroon na baay yu ko mën a dox mais pourquoi ñun li ñuy décider yëpp ñu bàyyi tubaab yi di ñu ko waxal. Hmm. boo toogee ak discuter tubaab yi ne na non démocratie la démocratie mooy kii am doole day jiite ki ci topp topp ci. mais ñun xamuñu loolu ñun waxtaan la xam ñun pencoo la ñu xam ñun dox lu baax la ñu xam ñu jël valeur yooyu nag bëgg ko joxaat sens biir Afrique hmm. moo tax ñu créer prix bi bi ñu ko joxee nag ren. fii lañ ko defee parce que la lauréate mënul ñëw parce que mag la mais dafa yónni ministre de la défense bu Kenya mu ñëw jël prix au Sénégal. d'accord noonu la demee xam nga tey maa ngi doon am sikki sàkk si ndax Macky Sall moo ko moom prix bi. non mënu ko moom institution boobu 2011 2011 Macky Sall ku mënoon a fal 2011 falul woon le 7 mai le 7 mars 2011 lañ ma notifié ni ma El Hadj Malick Mbaye mhm. vous êtes nommé. Mhm. représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre. D'accord. Maodo Malick Mbaye, euh, président mouvement Gëm sa bopp. Donc, est-ce que comme ni ñuy gisee Bougane Gueye Dany ak mouvement o ak keneen ak keneen ak mouvement o mais chaque fois dañuy gis ne ñoom euh, toujours ki nekk ci nguur gi rek la ñuy dem la ñuy dem wala ki nga xam ne dafa susceptible pour ñu jàppale ko pour que ñoom it euh, comme li ñuy wax ñu bañ ñu bañ des ginnaaw ci li nga xamante ni mooy la part du gâteau comme ni ñu koy waxee ci jargon euh, euh, comme ni ko waxee man sénégalais lambda bi ak ñeneen gars yi dañuy séddoo dañuy séddoo suñu yëpp. donc est-ce que mën nañu jàpp ne Maodo Malick Mbaye un jour mën nañ ko xaar ci présidence de la République bu Sénégal wala peut-être xëccoo mairie wala yu demee noonu ak mouvement bi wala mouvement bi dafa ñëw rek nekk juste mouvement boo xam ne da nga ko créer juste pour exister. non on n'a pas pour pour et puis comparaison yi sax moo dul moo dul truc parce que quand vous dites Bougane Bougane Bougane mouvement am. Mhm. je pense que les gens ont tout dit porté ko plainte parce que yow sa mouvement depuis 2008 nga ko créé moom bu toogee ba 2000 je pense 17 18. Mhm. mu ne wax wax mais Bougane suma rakk la. Mhm. am nañu relation yu ñu am. après bi ki ma doon wax benn dama ne woon dootuma ci waxati parce que. mouvement gëm sa bopp benn la mm-hmm. premier mouvement citoyen à orientation politique ci Sénégal mm-hmm. ñun ñoo ko sos. mais dafa yemoon Thiès nag. non non non non xam nga xam nga yem Thiès mooy lan. Mm-hmm. mooy nit da ngay am réalisme. dañu ñëw créer ko le premier février 2008. biñ koy sos boobu y avait rien. 2008 y avait dëkk bi politiquement Idriss Seck moo taxawoon am doole à Thiès. Karim Wade am moyen Ablaye Wade nekk président de la République ñun ñëpp ñu nekkoon ci di bañ. moment boobu demoon ànd ak Ablaye Wade wala ànd ak Karim Wade moo gënoon a yomb fopp. mais ma ànd ko ay nit ñi nga xam ne dañu am gëm-gëm pour en revenir ci le fait ñu naan Bougane gëm sa bopp ak yooyu. je pense que Bougane bon je dis que mouvement mënoon na créer mouvement naw sa bopp wala wane sa bopp wala leneen. <laughs> waaw xam faut pas déconner quand même non faut pas <laughs> aussi gëm sa bopp mënoo nekk en fait tu peux pas créer xam nga on t'a pas dit. waa nag dañu dem ba ba benn moment sa mouvement yow mel ne lu existeetul xam nga tey boo defee mouvement gëm sa bopp Maodo Malick Mbaye def mouvement gëm sa bopp bu Bougane dañuy gën a légaliser bu Bougane que bu bu bu Maodo Malick. lan mooy légaliser. maanaam kii moo gën a actif kii moo gën a xumb kii moo gën génn kii moo gën a def def def def def le tour du Sénégal pour wane pour wane pour wane idéologie mouvement am mais yow da nga ko yemale ci cadre Thiès ci benn cadre bu restreint boo xamante ni man bi ma dalee di la bëgg a boo boobu maa ngi woon Thiès di def benn émission aux jeunes via euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Moussa Lo voilà via Moussa Lo mais juste ci moment yooyu ma la doon bëgg a rencontrer ci laa ñëw fii nii à Dakar mais c' était un mouvement boo xamante ni man li ma bëggoon xam mooy ça s' étendait jusqu'où parce que peut être. waaw mais je je termine je termine je termine après parce que après day jaxasoo. je je mais mais mais mais je te dis une chose d' abord dama dama wax loolu en en passant. Mhm. mais dama lay wax ni Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum naan ñu lu siiw lu yegg te yàgg moo ko gën. xam nga siiw bari bruit am na. mooy bari bruit et tout mais ñun objectif bi ñu amoon xam nga mooy lan. mooy déminer les esprits. mooy esprit nit ñi ñu dugal ci gëm sa bopp. ni leen gëm sa bopp du naw sa bopp. gëm sa bopp du wane sa bopp. gëm sa bopp du alal parce que man mi ko doon jiite boobu je n'étais que Maodo Malick mbay consultant communication. Mhm. sama frais de consultance laa doon dundee. Mhm. mosuñu dund ci loolu. Mhm. mbir boo koy sos da nga koy da nga koy créer da nga jëmmal ci sa biir kër. boo ko jëmmalee sa biir kër ba pare nga génn kër yi nga dendal nga jëmmal ko fa. xam nga li gën a bon ci àdduna. nga wër di wasaare di wax. ba mu gi. fin ba bu jeexee ñu ni la mbir mi fan mooy base bi politique li ci ëpp solo ku ci dugg mooy amal cës laay amal base li xale yi di wax foo toj. day fekk nga toj fenn. waaw foo toj. laa toj xam ndax lan. parce que man bi ma ni bi ma bi ma commencé. Mm. dañu ni bërit man ma teel a comprendre li ñu naan l' acte fondateur. Mm. de la légitimité d'un homme politique c' est l' élection coow lay bari rek. Mm. homme politique moom bu ñu la falee nommé le ministre ministre d' état premier ministre te mosoo nekk un élu. amoo xamoo foo yoxee parce que da ngay wax nit ñi di la déglu rek. ñun bi ñu dee reyante créer mouvement bi dañuy non le faut être élu quelque part ñu élu mooy ñu fal la nommé mooy ñu tànn la mm-hmm. am na ñi nga xamante ni li leen di dundal tey ba ñaan yéen a ngi wax diw diw moo tax foo ci gis classe politique u Sénégal pour lan mu pauvre mm-hmm. parce que bu dee fukki nit yu ci nekk juróom-ñett yëpp seen légitimité xam nga fu ñu ko téye mm-hmm. ci décret bu ñu leen jox maire dañ laa faloon premier ministre folli la nga ni dëkk bi day tàkk bëggoon ngaa falu président falu la nga mer faloon ni le ministre bàyyi la nga dem créer say mouvement yooyu demul ñun li ñu sos pour la ñu créer ko mooy dañoo ñëw commencé ci benn quartier bu ñu naan Cité Lamy avancé ko ci Thiès dem à une élection am mille voix am ñaari poste ñëwaat ànd ak président de la République en deux mille loolu 2009 la woon ñu am mille voix ak deux conseillers en 2014 ñu dellusiwaatee président ni ma àndal ñii waa Benno ma ko yow loo ma wax du ma ko werante mais président damaa diggee woon ak samay nawle ni leen 2009 essayé nañu 2014 dañ koy waat bàyyi ba ma dem wax ak ñoom coow li xaw a bari ñu xaw am ay truc ñu dem ma sant yàlla ba suñu relation yàquwu ci ma ñëw en 2014 ak samay gars ñu tegaat ko ci am mille cinq cent voix bi ñu amee cinq cent voix ñu am quatre conseillers euh, municipal municipaux am deux conseillers dans la grande ville mm-hmm. am deux conseillers au niveau du conseil départemental mm-hmm. am six mille six cent voix dans le département de Thiès mm-hmm. xam nga tey coow li li muy bari tey man du ma wax Thiès ba ñu ni ma lu euh, ma kii parce que man sama bokku Thiès Macky Sall joxuma ko. d'accord loolu man mm. man du damaa xew falu. Mm. du damaa xew ñuy wax ci man. Mm. man dama bokk Thiès te dama cee bokk. maintenant ba ma ci bokkee ñun ñi ma tànnal nag ñi ànd ak ñi politique ñan la man ni leen man Macky Sall laa ci wóolu moom laa ci doyloo moom laa ci àndal mhm. loolu nag li may jox mooy humblement jox ñu ko ñun suñu mouvement mhm. mooy une existence mhm. parce que Sénégal képp ku leen songe ay koppar ñu ñu dégloo la soxla képp ku leen songe wax ju wax ju leer ñu dégloo la seen xol te jox la li nga xamante ni war na la mën a indil ay résultats probants looloo tax Macky Sall pourquoi quand il en il a gagné mm. parce que dafa amoon ñaari tànk yu wóor mm-hmm. am benn tànk siin mm-hmm. am benn tànk Fuuta mm-hmm. mais amul woon tànk Thiès de non fekk na non Thiès Thiès naturel non Thiès naturellement il y a un vote affectif enfant du terroir qui fait que les gens ont toujours voté. yow enfant du terroir nga kon mën naa ni yéen ñaar ni dafa nekkoon loo xamante ni la doon parce que yaa ngi woon ci mouvance présidence moom mi ngi woon à côté donc léegi waaw rejoindre na mouvance su président. ma rafetlu ko lool. danga nga ko rafetlu. non dama ko rafetlu. te bu ngeen di xool ci image bi 2017. tabaski moo jot maanaam seeti Idriss Seck. Mm. ñëpp affaire yëpp jaaxal ñëpp. parce que 2017 mi ngi woon ak opposition bu métti ak Macky Sall maanaam seeti ko. je viens je lui dis euh, monsieur le président euh, parce que c'est le président du conseil départemental te man ci laa bokk. Mm. ma ni ko bu ñu doon wax net do bande man yow laay àndal ndax yaa sama mbokk ma ni ko tey dama la seet si parce que bisu jàmm la dama la war a balu ak ziar la tàgguma Macky Sall bi ma fii ñëw nag ndax man aussi sama liberté man maa ko sama bopp mhm. ma mais lépp lu ñu fi wax dinaa ko wax Macky Sall mhm. parce que waruma wax ak yow Idriss lu may nëbb président Macky Sall mhm. mu rafetlu ko woo njaboot gi présenté ma leen lu ne mu wax ko ma ni ko mais man dama bëgg yow président Macky Sall waxuma nga bàyyi li nga nekk nekk ci moom wala mu bàyyi la topp topp si la mais yéen li ngeen seq sequñu ko yéen ñaar parce que yéen ñaar da ngeen yàgg man dama jàpp nii Idrissa président euh, Idrissa Seck en tant que nit ak Macky Sall en tant que nit war ngeen di au moins am bu mu jokkoo am lu rôle bu ma ci joué rendre ci compte président donc bu ñu demee ba ñu ànd tey man dama koy rafetlu courage la nag parce que ñoom ñaar ñëpp wane nañu fit parce que Sénégal ku leen di déglu ci seen xel ngay dox ci seen làmmiñ ngay dox. lépp ànd bi politique lalu ko DG. waaw mais mais yow yow deux hommes politiques bu ñu àndee bu leen politique lal lu koy lal. xam nga da nga commencé par wax yéen ñaar en tant que nit. no non mais dama wax no loolu dama doon wax ni la boobu dama wax ni ñoom dañu am une relation ancienne. bu rafet mm. ki nekk président cadre ki nekk premier ministre ki nekk ministre de l'intérieur ki nekk premier ministre ñu am fu mm. bari fu ñu jaar boor seen parti démocratique sénégalais mm. dem naa ba ni président Idriss Seck ni ko yow lii nga seq Macky Sall man ma ko moom mais yéen ñaar war ngeen seq jàmm li tax man la fit la ñu doxal ñoom ñaan ñëpp nag bu ñu ku ci doon déglu say nit wala sa yenn ci ay nit doo dem doo wax doo lijjanti doo te gis nga il faut que nit ñi am fitu li ñu war a def bu ñu demee ba gëm ni moom la ñu war a def ñu def ko beneen élément bi may wax sénégalais yi nañ bàyyi di ñu ci ëpp naan noo dara xewul ku nekk da nga war te nii dañu xeex ba kañ mais waa léegi xeex ba. waaye war ngaa mën a gëm ni ab réew day am day am day am day am day am nu mu tuddati sax. opposition opposition. waaw mais très bien léegi. ndax opposition boobu moo war mën a may euh, président doole mouvance présidentielle pour que nag ñu xam li ñu liggéey baax na am. ci la ñuy natt seen bopp waaw mais mais actuellement ni Sénégal amul opposition y des gens qui sont à l'opposition qui ont dit affaiblir na opposition bi. waaw mais moom moom dafa dem Sénégal yi votel ko en deuxième position. loolu moo pour te dire. Hmm. mais dama ne la bi mu demee ba gëm ni moom. Hmm. crise bi am ci adduna bi te gis nga sénégalais yu bari. Hmm. sama yaay daf doon wax naan. dalagul doy na bolom gàllaaj dara bu la dalagul da nga naan dama am gàllaaj moo tax daluma ñun ce qui se passe actuellement dans le monde. li xew ci àdduna bi nga xamante ni coronavirus Covid bi ñu doon naan jeex na mi ngi dellu si waat mm-hmm. il y a le djihadisme il y a le terrorisme il y a énormément de problèmes ici réglé wuñ ko ni noo jarul ñuy waxtaan ñooñu dañoo xamul mm-hmm. man je salue rafet rafetlu naa bu baax sans réserve retrouvaille bi am entre Idrissa Seck. kon bu lay wax nitu Thiès la metti non xam nga xam nga xam nga yooyu. non mais bu la metti da ngay seet li ñu décrire yëpp ni noonu la nitu Thiès mel mais ki koy wax moom wóor na ma nii ni euh, buñ ko indi woon mën nañ ko teg waxal ko moom ci boppam li nga xamante ni du dañ mais fa ban dëkk nga dëkk gis dëkk boobu ñëpp jub ban dëkk nga amul ban dëkk nga gis askan famille famille ngay gis ban famille ngay gis famille bi yëpp li ñaan ku nit ku nekk ci àdduna loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkkoo mbokk boo mën a wane loo am am am am am nga mbokk mi nga xamante ni bu doon sa sago doo ko wane donc ay waxu nitu Cees yooyu yooyu dama leen di wax ñëpp man du ci sax débat dañ ko jàpp yëfu xale yuy wax quoi c'est normal benn moment la ñuy wax ay yooyu mais amul sens nitu Cees pour la wax waxeet gi tamit garaaw. non wax waxeet mooy lan. ci diine ma yëpp garaaw. dama lay wax ci diine. Mm. ci diine sax may te moo gën a fort. wax nañ ci ay wax. Mm. dem ba gis ni loolu ñu waxoon war na changer xam nga lan laay lan laay du nangu. Mm. man dama gëm ni Idriss ma ci Sall nañu daan féewaloo ci bëtu nit ñi mm. lañu ñu deful mm. mais ci seen relation ñoom ak ñoom ci waxtaan mm-hmm. ku ci nekk li nga mën a wax pour intérêt askan wi xam nga fañ koy waxe leen rek a changé mm. mooy ci mbedd mi lañ ko daan waxe léegi ci biir nekk lañ koy waxee. troisième mandat. bon pour moi c'est pas xam nga moom la intéressé xam nga. de un mandat lañu. <laughs> un mandat un candidat une constitution un pays lu nekk un la. un candidat kay candidat lay doon éventuellement bu dee Macky Sall daf ko bëgg doon une constitution constitution bi dañ koy xool un mandat benn nit la donc dama jàpp ni xam nga man bi nga commencé ba léegi li ñuy wax quand tu poses la problématique de l'emploi des jeunes dañ ci war a xalaat boo poser la question de l'immigration la question mais ñun dañuy wax ci nga xamante ni mën nañ ci wax ba suba te du am jeexital ci ci nit ñi mais bu ñu demee ba mu ba parce que ñaara am bu ñu demee ba mu ba ñu war ko def bu ñu posé acte bi ñi ci ànd ak moom ànd ci ak moom ñi ci àndul moom àndul ci ak moom li ci des ñu bàyyi ko ci loxo peuple sénégalais. donc mën nañu wax foofu noonu alhamdulilah euh, bu ñu doon wax tey Maodo Malick Mbaye ndax dafay tenir euh, jàpp bés boo xamante ne wala boog at moo xam ne ñun mën nañ ko xaar ci mu nekk président Sénégal da nga koy dëggal waaw wala déet réponse bi question oui u non la. no non nan nga mën a waxee nit bëgg naa na a waaw mais lan nga mën a waxee loolu lu rëy loolu ah. loolu nga xamante ni dangay ngay ñaan yàlla kay ah. yàlla bu koy def yàlla na nga ko fekke tal ko te mën ko te li ngay def lépp njëkk njëriñu askan wi waaw yooyu yëpp xëy na dañ ciy dañ ko sous-entendre waaw moom mais moom laa la wax mais bien sûr gis nga bi ma ko waxee nii bi ma ko ceeku ci mouvance présidentielle ber yëfi boppam nag ndax tu di dis Thiessois tu te dis préoccupé par les affaires de la cité donc dafay jot comme li nga wax toj nga Thiès dafay jot peut-être que sénégalais yi tamit comme ni ñu ñuy essayer euh, par euh, li xam ne mooy nommer suñu l'homme du mois euh, sénégalais yi tamit xam la. xam nga xam nga li may wax foofu Tima te mu am solo. Mm. mooy xam nga man xamuma woon sax ni yéen a ngi may bàyyi xel pour ma faire l'homme du mois. Mm. te ku wéetal yàlla di nga xam ni wootewuñu waxuñu. Mm. du lu ñu waxtaanee. mais dama wax ni xam lu am solo nit ki jëfal li nga war a jëf defal li nga war a def teg ko fi ko war a teg leneen li nga bàyyi ko yàlla ndax yàlla xamul lu war kon doo am benn doom ko rey yàlla bu ko am benn doom yàlla ko rey mais ma non pourquoi yàlla xamul lu war mm. lu jot la xam te lu jot mu def ko mais dama wax ni daal mm. ñett la ñuy ñaan yàgg fi yokk ak mucc ak képp ku ñu seqal wàllu àdduna mais je termine ak képp ku ñu war a yow àdduna mm. nga bañ ñoo jéppi bañ ñoo xeeb deux choses rek laa wax mm. man tant que le président Macky Sall et la mm. moom j'ai fait le pari la l'accompagner totalement carrément surtout benn même ma tuuti ma wax la même ma ma la non bul wax même buy dama la wax ni man dama la wax ci cadre yi nga xamante ne moom laa comprendre ma wax la ni nag moom bu randoo ci wàllu politique fas yéene tuma moom mu mu nekk koo xamante ni keneen moo koy wuutu. dama wax ni non dama wax ni moom bu. waaw mais moom bu randoo. Mm. man dootuma amati kilifa ci wàllu politique. Mm. képp ku may ànd ci politique dañuy nawlonte di ànd. Mm. yow yaal jiitle foo jëm fa laa jëmee ci politique loo wax loolu laa wax loo wax ko loolu Macky Sall laa ko defal te dootuma ko defal kenn. est-ce la xaar ci élection municipale oui woy woy woy parce que xam nga xam nga pour lan ñu am légitimité def ko hmm. parce que dañ ko def ca boobu taxawuñu ci benn moyen et aujourd'hui gis nañu initiative yi nit ñi jël pour wax Malick ñëwal parce que am nañ ci yow yaakaar mais li ëpp solo daal mooy ñun suñu jëf ñu ngi koy teg fi ñu ko war a teg hmm. di rafetal lépp sans être hypocrite di di sàmm lépp hmm. te bañ nangu lépp tamit ba nga xamante ni ëllëg résultat bi dinañ ko mën sa émission jeex na euh, monsieur le DG de l'ANAMO représentant aussi de euh, li nga xam ne mooy CIRID en Afrique ñu lay wax rek lan nga bëgg euh, sénégalais yi xam ko lu ma waxul wala lu ma laajul wala lan nga bëgg peut-être sénégalais yi jàpp ko ci l'homme en quelque sorte ak loolu mooy bon je pense que l'homme en quelque sorte li ñu ciy wax mooy may rafetlu déjà initiative bi parce que d'abord man xaw moon benn format wu nan la demee que dem ngeen Thiès wala yooyu waxtaan ngeen mm-hmm. di ñaan yàlla d'abord li ñu njëkk ñaan yàlla mooy mbas mi vraiment yàlla na yam 2000 yàlla na yam 2000 2020 2021 yàlla na nekk atu jàmm 2021 le 1 janvier incha allah waaw donc euh, donc euh, ñu ñu ñaan yàlla 2021 bi mm-hmm. ma ci souhaité ñi ñi jàmm ak salaam mm-hmm. yokk bu yëg ko mm-hmm. ak tawféex di ñaanal ko sama famille ñaanal ko famille yëpp ñaanal ko njaboot gi yëpp di souhaité également plein succès Euh, à leeral tey ñaan yàlla leeral deux mille vingt et un ñu dugg ci kanaal bi. ñu ci canal TNT. ah non waaw waaw très bien. 33 bi mais da ngeen di nekk ci 33 bi nekk ci kanaal plus bi comme ça <laughs> parce que vous faites un télé une télé en continu et loolu dafa am solo en tout cas merci beaucoup <laughs> merci Tima et merci également aux aux techniciens merci euh, jotante bi xëy na metti na ma jéggalu ci aussi. <laughs> vraiment vous avez été très <laughs> courageuse. pour taxaw mais bon merci beaucoup. ñoom ñun ñoo lay remercier aussi di la balu àq bu baax parce qu'on a pris de votre temps ñu ngi la siy jéggalu bu baax a baax euh, une personne disponible macha allah ñu ngi koy remercier bu baax a baax di la wax rek ni la euh, at mi yow la ñu tànn muy 2021 yow yaay njëkk a li nga xam ne mooy l'homme du mois une première ci paysage médiatique bu Sénégal ah l'homme du mois ñun waa Leral TV ñoo ko fi fi njëkk a def jël nit yi nga xamante ni dañu xarañ ci seen liggéey teg leen ci kanam yow nag ñu nga am privilège yu nekk ko euh, bi ci kàttanu yàlla kon ñu la si jaajëfal bu baax di wax rek yàlla na nga ñu jikk mu nekk euh, ñoo xamante at mu weer wu jot rek incha allah dinañ tànn bi kenn koo xamante euh, dina nekk suñu l'homme du mois li émission bi nga xamante ni rek c'est relative à l'homme du mois du ngeen am di ngeen am la vie de peut-être l'homme am tout petit peu ci suñuy plateforme mais dañ leen di wax rek passer une euh, très belle journée ou une bonne soirée quel que soit endroit bi ngeen nekk wala boog fu ngeen ñuy amee ci àdduna bi ak waxtu bi fa jot di leen di jaajëfal bu baax a baax gëmal sa bopp doonal ki nga doon te fësal sa liggéey peut-être di nga doon un jour l'homme du mois de Leral au revoir